waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Tiwaawan man la Gumba Bool géwalu mataar Ba doomu Tiwaawan tey maa ngi ñëw di wax ci site internet bu ñuy wax Thiès 24 macha allah di nuyu ñëpp di nuyu samay waajur waaye di nuyu samay mbokk ndax mbuus deful lu gën pepp. waaw situation Tiwaawan nag macha allah dan ne lu benn man rek ñaar dàq. ñu ngi nuyu kilifa diine yi waaye ñu ngi nuyu kilifa aada yi. di nuyu xalifa bi yal na yàlla yokk fanam te lépp li nga xam ni moom moo ko jiite yàlla may ko ci ndam ci barke Seydina Muhammad waaw. yow demoon naa ci kaan bi ànd ak ministre bu ñuy wax Matar Ba ak Daaz Mamadou Ngom ñaa ñu doon ñoo xam ne macha ñu bëgg seeni dëkk lan ñoo xam ne président. wóolu gim leen wóolu ba dénk leen sport ñun ñii demoon foofu ku fa dem xam ni nekk nañ fa ci bon condition jël nañ ci hôtel yi baax ñu ngi doon lekk ba suur di naan ba màndi macha allah te tamit ku fa dem rek macha allah jóge woo fa jéppi fédération wala nga jéppi ministère bi waaw moo tax nag wax fa dëgg yàlla faw ñu ñaaxaat ma macha allah ñi jiite sport te xam ne sport war nañ ci mën a gën a bay waar waaye nag. ñu ngi jaaraama daal Matar Ba mi nga xam ni jàmbaar la ci Sénégal. final bi jeexee nag maa ngi leen di seedeel ni képp ku fa nekkoon rek am nga lu la naqari ba kilifa yi nga xam ne ñoom lan àndaloon sax pour ñu gis leen ñun dañu amoon problème ndax Matar Ba dem nañ ba fi mu daloon ci biir Marriott waaye dafa am déception. ndax macha allah ñun ñëpp sénégalais yëpp koo waxoon du jël ndam li macha allah du ko gëm. ndax yaakaar gu nu yaakaar woon yaakaar nu coupe bi dañuy ñëw teg ko ci loxo président de la république macha allah Matar Ba déception la am ba dafa dem toog bu ci fajar gi la ànd ak Zori ak Ablaye saw Augustin Senghor doog a ñibbi Sénégal waaye bi ñu yegsee tamit Sénégal delloowaat nañ leen njukkal wan nañ ni macha allah dem gi ngeen demoon dem ngeen fu ci fulla yàlla def li gën waaye bi ngeen ñëwee teeru nañ leen teeru boo xam ne 2002 sax amuñu ko woon kon. waaw kon nag ñu ngi joxaat ñëpp message boo xam ni ñun ñii nga xam ni ñoo nekk ci dëkk bi di ay géwal di communicateur di jàppale autorités yi nekk yëpp ndax ku ne da ngaa am sa bunt man sama bunt ci Tiwaawan mooy gumba bool géwalu Matar Ba doomu Tiwaawan waaye daal maa ngi leen di ñaanaat ngeen bàyyi xel population bi di jàppale nit ñi ci acte social yi di gërëm bépp kilifa bu fi nekk préfet bi commissaire autorité yi ku ñuy wax Mamadou Diagne Sy Mbengue maire di gërëm Seynabou Gueye Touré la Lion di Kayor di gërëm Yaya Diallo di gër gërëm sama xarit Ablaye Ndiaye Ngalgu acteur de développement taalibe sëñ Abdou Aziz Alamine di gërëm Matar Diouf gumba la autorité yi nga xam ni yéen a fi nekk Cheikh ab lay Mbuub bëgg nan ngeen jàppale population bi lépp li nga xam ni moo fi saafara ngeen taxaw jàppale population Tivaouane ñun sunu jàngoro bëriwul autorité yi man ngeen cee taxaw di volontaire koñ bu taati ngeen fexe def ay pexe pour ndox mi jóge fi man nag dama ko wax ci tànka en tant que doomu Tiwaawan ndax kenn gënumaa bëgg Tiwaawan ndax su ma amoon ay milliards Tiwaawan laa ko yéene maa ngi gërëm sama ministre Matar Ba liñ la dénk yàlla na oyof lool ci kaw Matar Ba ak Mamadou Ngom ñaa la jeune d'âge Séeri Awakan taalibe Serigne Saliou merci